politique bi Macky Sall déroulé euh, bi Macky Sall définir donc est-ce qu'on peut supposer que c'est la meilleure personne pour euh, conduire euh, nu ñu koy wax sax euh, poursuivre affaire continuer li les li Macky Sall bëggoon def wala am nga yeneen info sur d'autres personnes Abdoulaye Boun Abdallah Dionne si kii waxu ci sànq mais wala non bu doon wax ci waxu mbir mu normal rek waaw effectivement <laughs> Amadou Amadou Ba aurait été mhm. le choix idéal mhm. mais Moussa da ngay xool bi ñu nommé Amadou Ba premier ministre ba tey jii. oui dafa mel ni quelque part le président ne lui a pas lâché les brides mooy maanaam ngay dawal fas te nga la bi quoi. Mm-hmm. bàyyeeguñ ko. kon yaakaaruma man mu nekk une option. première pour le président de la pour yow du du Macky Sall. non non gëw ko noonu aussi pour wan ko comme li Yérim Seck wax ci livre bi que ni loolu la doon def ak wàdd bëgguma dara soxlawuma dara ak yooyu doon taxaw. est-ce que Amadou Ba aussi bëggee ko noonu mooy téye boppam. wan ko ne ko j'ai pas d'ambition voilà. voilà j'ai pas daal. mais est-ce que xam nga ni président Macky bu desoon PDS. ba du mës a présenté wu a quitté le très tôt et sortir très il a quitté très tôt le moo tax il s'est présenté. mais bu desoon PDS ba du mës a comme candidat loolu moom c'est clair. Mhm. donc tey jii. li leer ba leer mooy comme ni nga doon wax makki makkilu bi. Mhm. musul wanee ni que quelque part am na ah même bu dee quelque part eh, il faut le dire. Mhm. président Abdoulaye Wade daf ko lâché woon bàyyi ko carrément mu manager parti bi. Mhm. manager le gouvernement. fii. Euh, Pape doguma la j'ai fait deux ou trois tournées avec Macky Sall bi mu nekkee numéro 2 du PDS. pour réinstaller les structures du PDS. mën naa la cee nett lu bëree bëri. muy placer ay gaayam mais fii dans ce cas de dans Amadou Ba même parcelle bi sañul taxaw sax ne maa fi patron. ah oui léegi léegi léegi ndi dàq ko fa. en fait c' ça le problème ki c' est ça c' problème ki la c' est amul leadership boobu. Mm-hmm. tey moi je vois quelqu'un mm-hmm. ki nga xam ne c' est mon appréciation. Mm-hmm. te dafa mel ni président kooku tey jii kooku la gën a jox bopp kooku la gën a jox nopp. muy kan muy Abdoulaye Daouda Diallo. ah oui on parle beaucoup de Mouhamed Boun Abdallah Dionne nga ne ñu Abdoulaye Daouda Diallo Moussa Ba nañu xool les visites surtout à Touba. Mmh. la visite de Abdoulaye Daouda Diallo. a mmh. été hyper hyper hyper médiatisée xoolal euh, euh, lu ko foofu. non médias d'État je parle des. les médias d'État non je parle des médias d'État je parle de la RTS. Mmh. la RTS de Racine waaw uh-huh. je parle de la RTS. Mhm. dama nga xool nu ñu médiatiser la visite de Abdoulaye Daouda Diallo. par rapport à celle de Amadou Ba. Racine est militant aussi bu ko fàtte. non dama ne. Euh, non non man non non man dama wax dama ne. loolu aussi du ci. est-ce que est Racine tànnul kaawam. non dama ne ni ñu ko <laughs> médiat wax man ñu ko médiatiser. ni ñu ko médiatiser. Uh-huh. bokkul ak ki nga xam ne mooy bu premier ministre bi. oui bu doon dañuy topp parallélisme des forme li ñu médiatiser bu Amadou Ba moo waroon ëpp. bu Abdoulaye Daouda Diallo. Amadou Ba bi nga xam dafa dem sax di wax ci turu état. mu ngoog muy benn ñaar góor mais ñaar. mais des structures de l'APR se sont réunies cité carrément ne ñoom Abdoulaye Daouda Diallo mooy seen candidat. ah oui des structures de l'APR. non bon je rectifie. faut rectifier ça. je parle pas de structure des pontes de l'APR. des pontes se sont réunies. quelques. non des pontes de l'APR. quelques quelques donc donc y a réunion. merci des pontes de la paire se sont réunis. oui merci pour la précision. de même, non non non je de même qu'il y a des pontes de la paire aussi qui sont avec d'autres candidats. non non non je dis. Ah, c'est normal aussi. mais info bi. moi c'est un point de vue rek ah. c'est la démocratie. waaw c'est point de vue non Pape l'info que gi ngay joxe di diw ko. waaw ah. c'est des des pontes de la paire mooy seen candidat. ne ko yow yaay sunu candidat. Ah, d'accord muy benn. d'accord te li ma gis. encore li ma gis. Mhm. et dans les prochains jours. Aly Ndiaye balaa mu naan gisuma kenn ku mën a remplacer sama candidature dafa amoon lu mu njëkkoon wax. ñu ngi ko doon bokk ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon bokk xaw ma euh, prêter. ni que moom mu ànd ak Abdoulaye Daouda Diallo moo gënoon yomb mu nekk ci gannaaw Amadou Ba. Amadou Ba loolu tamit lu am solo la man nag dama jàpp ni que tey jii président. Mhm. ci logique bi nga xam ne moom la nekk bu doon Amadou Ba moo doon candidat am. Mhm. jour bi mu ko nommé wala jour bi mu décidé ni que il ne sera plus candidat à un troisième mandat. Mhm. à partir de ce moment là la waroon jël lenge yi. Mhm. ou bien la plupart des lenge ne ko Amadou. kaay gaa yaa ngi nii amal pouvoir de nomination monsieur naka de. Omar Gueye mii su naree bëgg poste bu ñu ko naree nommé poste. na jaar ci yow ainsi de suite comme moom ni ko Ablaye Wade. dafa présider réunion yi parti bi. ainsi de suite di présider les réunions de Benno mais est-ce que Amadou Bazar mas naa présider une réunion de la paix. loolu mooy problème bi damay tooñ. alors euh, Omar Gueye. Euh, dégg bu baax li li Pape Sané wax xam naa ne ñii ñoom il faut diir dire di ni dañ bàyyi waa Benno ñu régler seeni problème ba pare mais Benno Bokk Yaakaar à 6 7 mois de la euh, présidentielle ba léegi amaguñu candidat est-ce que yaakaar nga ne demain ou durant ce week-end président Macky Sall mën na réussir prouesse su tànn koo xam ne. ñëpp dañu naan gongo ànd ak moom dem wala da yaakaar ne euh, comme ni ma dégg yenn responsable APR yi wax ko ak ah, que ni quel que soit bu muy def y aura d'autres candidats à côté. bon nan nga gisee mbir yooyu. je pense que euh, bon APR c'est une c'est un appareil politique. Mm-hmm. Euh, c'est une machine politique boo xam ne ay nit ñoo ko composé euh, yàgg na di.